dañ ko engagement patriotique dañ ko axé ci fas yéene liggéey mettre en avant les compétences professionnelles mettre en avant les qualités des hommes loolu tey dañ ko tumranke mépp di ko jooy kon suñu mouvement ci loolu la jóg ñu wax ni que ñun am nañ ay modèle yu nga xam ne mën nañu inspirer pour ñu sukkandiku ci loolu mën tabax suñu réew tey waxuma département bi waxuma commune bi mais man réew mi laay waxal dañu war a ànd dañu war a jubal dañu war a takku dañu war a liggéey pour suñu réew avancer génn ci jafe yi nga xam ni jigéen ñi ñi ngi ci xale yi ñi ngi ci góor ñi ñi ci. parce que dañu bëggoon tey ñu dajale toute la classe politique de Mbacké que mu nekk ñiy wut les communes comme de Mbacké département que mu nekk ñiy wut communes yi que mu nekk ñiy wut département bi ñu wax ak ñoom ne la ñun li ñuy xaar ci ñoom mooy déjà un plan de développement cohérent parce que laaj dëkk bi neex na. mais en plan de développement cohérent bu nga xam ne ëllëg danga koy teg ci loxo population yi te du nekk ay fen du nekk ay nax ñun ñu xaar leen ci loolu ne leen nag képp ku nga xamee ne andilu nga ñu loolu ñu wax te mu tënku rek ci jubal takku liggéey nga nga viser trois piliers yi nga xamee ne ñun dañ ci woote te ñëpp war nañ ci woote mooy un leadership de qualité mooy une modernisation de notre département Parce que taille, on constitue la deuxième agglomération du Sénégal. Mais on représente ko aw niveau du Sénégal ñun ñooy ñaareel bi mbooloo ci Sénégal. waaye lan lañu ci Sénégal Il faut qu'on se pose cette question. Suñ fi nekkul dara, lan moo motax nekuñu fi dara Donc loolu aussi daf ñu interpeller ñun ñëpp. dafa interpeller la classe politique dirigeante mais dafa interpeller bépp doomu Mbacké ak yow nga nekk politicien nga ñàkk ko nekk loo mën di doon tey interpellé na war ngeen ci andi war nañ ci andi ay réponses man dama leen xaar ci réponses yooyu. dama leen wax aussi muy troisième et dernier pilier mooy que ñun dañu nekk ci benn conurbation bu nga xamee ne amul benn limite boo gisee la conurbation di Cap-Vert de Dakar dafa nekk ne géej gi keek na ko ñu tabax en hauteur mais ñun fii ba Jolof fii ba Kajoor fii ba Saalum fii ba ngay dugg biir Bawol amul dara loo xam ne dana téye suñu conurbation suñ ci jógul. dana nekk loo nga xamee ne tool yi dina toxu garab yi dina daanu bu ñu paree nag on fera face aux maladies pulmonaires on fera face à maladi maladies comme le cancer te loolu fii lañ koy régler ci plan de développement yi ñuy proposé ci lañ koy régler mais du ñu xoolee rek di xaar muy dem noonu di dem noonu boo légee ñun ñooy am feebar yooyu suñuy doom ñoo koy am suñuy sët ñoo koy am suñuy jabar ñoo koy am te bu boobaa ñun ñi waroon diriger on serait responsable. Euh, colonel Alimar du def ci ay lëndëmtu ak i làqatoo kii def ay yëf lu ne fàng def dañu wax ne lii ñu wax woote ko képp ku nga xamee ne daje nañ ci ak yow ñu waxtaan ci aw ak yow jubo ñu juboo dans la perspective des élections législatives jubo dans la perspective des élections présidentielles bu boobaa ñun bu ñu lay dañuy taxaw ñëpp dégluñu ñu ne kii la ñuy soutenir mais bu kenn jàpp benn rumeur. wala muy ay fokk fee fekkalanteeg ñu nekkuñu ci yooyu lu leer la ñu woote lu jub la ñuy woote na ko ñëpp xam tey. ñu wax muy suñu critère di ci jauger nit ñi suñ ci dajee dinañu woo suñuy responsable waxtaan ak ñoom seet kan la ñuy tànn. fi lu nii amul benn kandaay yëpp ci yem bu ñu buñ dajewul dañuy abstenir dox suñu dox jublu ci li ñuy jublu bu boobaa dañuy ne dañu duñu voté di jàppale kenn. bu fekkee ne. li ñuy wut ak a woote gisuñu ko ñun danañ fermer danañ former suñu parti politique jàmmaarloo ak yeneen parti politique yi xeex ak ñoom parce que dañu bëgg réew mi ñu teg ko ci jub ñu teg ko ci takku ñu teg ko ci liggéey.